bokki jullit yi gannaaw ba nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy aj ci coow li xew ci jamono muy coowul kii moo moom suuf si ak kii moo ko moom kii naan moo ko moom kii naan moomu ko buñ ci ñëw dañuy xam ne lislaam bi ñu nekk ñun jullit yi diina ju mat sëkk la joo xam ne amul genn wàll gum bàyyi gu amal nit njariñ fii ak fa nu jëm nii mu tëralee jaamu yàlla yi waxtu wu ci nekk lu ci nekk ak waxtoom ak na muy toll ak fa ñu ko war a defee su fekkee wutal na ko barab noo nii la nose nit ki ak dundam digganteem ak ñi mu séqal àdduna muy mbir moo xam ne nag suñ ko gënee yaatal bu nit ki jógee ci ak jaamu yàlla gu yàlla sàkkal waxtu ak fu ñu koy defe ba mu noppi ca la ëpp ca la muy nekk mooy li dox digganteem ak jaami yàlla yi nga xam ne mook ñoom ñoo séq jamono loolu nag bu dee ab jullit lu mu cey jóg di doxi war naa taxaw laaj lislaam ana fu mu ca war a tàmbalee ak ca ak fu mu ca war a yam bu dee lu mu war a dugg la mu dugg ca bu dee lu mu wër sa dugg la mu taxaw bañ caa dugg ba faw ndax kat amut leen lu tàmbalee fii ni ñu koy fàttalee saa su nekk ci àdduna di fi yam kese lu fi tàmbalee njariñam mën naa feeñ àllaaxira nag waaye lu fi tàmbalee rek àllaaxira la jëm wàllu wut nag da caa bokk wut wut moom yàlla moo ñu wax ci alquran ne huwa alladi jaala lakum al arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waaye na ngeen xam ne nag ilayhi nushur suuf si yàlla daf koo tàllaal lu ci bari mu wax la tax mu bind ko ak yoo xam ne dane bind na ko waaye da ngeen ko mas a xam bu ñu demee ci suratu naxl danañ ca fekk mu tudd ca suuf ak li ne ci kaw suuf lu ci bari anam ngam ko binde waaye àgg na ca ne nag am na lool du ngeen ko xam moom rek moo ko xam xalaqa alsamawati wal arda bilxaqi taala amma yushrikuun xalaqa al insana min nutfatin fa ida huwa xasimun mubin nit nii la ko binde wal an'aama xalaqaha lakum fiha dif'un wa manaafi'u minha taakuluun jur gi dangeen koy jëfandikoo yii ñu di si wut ay yére yu ñuy sol yii ñu di leen lekk yii ñu di leen war lay wax bay wax naan wal xayla wal bixaala wal xamiira li tarkabuha wa zinatan waaye nag wa yaxluqu ma la taalamuun am na loo xam ne noppi na ca te du ngeen ko mas a xam mukk kon boog suuf si ñu nekk kenn ku nekk di ci xëccoo yàlla mi ko bind képp daal moo ko moom moo xam li ci nekk lépp am na fu muy wax ne ci suuf si yàlla mooy wàcc ndox mi ci kaw ci suuf si lii doon ndoxum naan lii doon ndox mu ngeen di baye lii doon ndox moo xam ne li koy tax a wàcc mooy ngeen di ko sàmme muy saxal am ñax jur gi di ko lekk bu ngeen noppee lekk jur gi huwa alladi anzala min alsamaai maan lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun fihi tusiimuun yumbitu lakum bi zara ba aaya ba àgg waaye nag dañ caa war a yeewu xam ne yàlla du bind nii rek amul jot goo xam ne day bind nii rek di sànni lu ci ne am dala ko waral ki yorom xel rawati di ab jullit xel muy naaj su ne woon yàlla dann rek du xëccoo te ku xëccoog moom mu bàyyee la ko وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون am na lu tax yenn ci yi mu wax ne nangam ak nangam moo tax mu def ko ci kaw suuf si tudd naa ci benn ay benn benn waaye gën na caa leer wa alqaa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subulan laallakum tahtadun moo ci def ay doj ak ak joor ak i deg fu la neex tàllal aw yoon fu la neex yéeg fu la neex wàcc lu ko waral mooy bu fekkee da nga romb aw doj jàll wala boog aw tund soo xamatul foo jëm xam ne ci tund nga jóge woon nga mën caa delluwaat laalakum tahtaduun wa alaamaatin wa bin najmi hum yahtaduun afa man yaxluqu kaman laa yaxluq afala tadakkaruun wa in taudu niamat allahi laa tuxsuha inna allaha la gafurun rahim dellu wax ne suuf si moo ko tàllal nii mu tàllee mu mel ne lal ak laltu dal ne nag ñiy toog ci laltu gi ba seen dem jot ñu dem yam ca kepp ñooñu de bu ñuy tànn ña gën ñoom ca lañ wala ñoo ci jiitu yam ca kepp wal arda farashnaaha fa ni'mal maahiduun yam ca kese waaye am na fu ñuy wax ci alxuraan ne ku naan moom moom li tàmbalee fi yam fee it wala diwa moom li tàmbalee fi yam fee nañ ko laaj ba xam moom lu muy teg ci li yàlla wax ne lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard wa lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wa ila llahi turjau al umur yàlla bu ne woon yàlla moom moom waaye daf na ñeel na yàlla ñeel na yàlla moom dara jiituwu ko ñeel na ko moom képp yam ca maa fi samawati li ne ci biir li ne ca asamaan sa te xamaguñ ko wa ma fi l ardi ak liñ xam ak li ñu xamagut ci biir suuf si loolu lépp nag lu ci dem ba dugg ci loxoy nit ne nit ki xam ne yàllaa koy mujje ila llahi turjaa al umur inna naxnu narisu al arda wa man alayha wa ilayna yurjaun waaye am na fu muy waxe ne walillahi gaybu alsamawati wal ardi wa ilayhi yurjaau al amru kulluhu li na ci biir suuf si li ngeen ci xamagun la ngeen xamagutu ko ëpp fuuf te yàlla rekk ko xam kon boog bu kenn ne maa tàmbalee fii yam fee ba ku ko laal rek ay di bëgg a doon mburi salax fa'budhu nañ ko fi jaamu rek yow jaamu ko yow jaam bi wa tawakkal alayhi te fab sa mbir bàyyi ko ci loxoom te xam ne kat wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun li ngeen def dara ump ko ci am na fi mu wax ci alquran naan bis bu set bis penc di gën a jege ñii ñu xamee weer wi feq ak a so am nañu ab takk ci ne bis sàngam ci weer sàngam la weer wi taawulug lëndëm ci lay tàmbalee feeñ ci lay tàmbalee mataat ci lay feeñ ba yàgg mu tàmbalee taawulug lëndëm ba yàgg muy lëndëm du ñëw guddi gi ñiy jeex a tëdd loolu ñoo koy gis wala ñuy teel a xëy léeg-léeg waaye nee na yooyu ñuy gis yépp duñ ca xalaat dara moo ne alxuraan de mooy xikma baaliga lu ne wax na ko waaye fa maa tuxni nuzur liñ leen di wax naan leen ëllëg mi ngi ñëw bàyyiwuñ ca xel ñu bari dañ ko wan gannaaw loolu lañ cay dégg fa mu ca teg fa mu ca mujj ci ay wax mooy suuf si ñuy xëccoo ñii mu jaral leen ñu naan ku ko bëgg a jël suñu bakkan ngay jaar ñii naan ku ma ko tee jël ci sa bakkan ci sama bakkan ngay jaar ci bakkanam moom lay jaar yàlla ne nag seen suuf rek la nit am soo xam ne du ko xëccoog kenn te kenn du ko xëccoog moom mooy bu faatoo fa ñu koy tëral foofu rek la nit am ci suuf lu hectare yaatu yaatu ak lu lim ba bari bari bari bari ci yeneen loxo lay dem yeneen loxo lay dem te moom moomee ko moomoon nee na yooyu fa la ko fekkoon ay maamam fekkoon ko fa dana demaat lu yàgg muy dugg ci ay yoxo di génne dugg ci yoxo ba yàgg yàlla woote ñépp wuy ji ko su boobaa kenn ku nekk fa muy génne wuy ji woote yàlla ba nekk mooy dëgg dëgg suufam yawma yaxrujuuna min al ajdaathi ka annahum jaradun muntashir bis ba yàlla di woote ñépp di parr parri ni njéeréer yi walla bu tawee ba ceeba mu jëkk yow yi génn di naaw ku yeex ñu fatt la ana fa ko yàlla dencoon taw bee ko ëndal walla dafa nekkoon ci suuf si yàlla rek ko xam lillaahi xaybu samaawaati wal ard noonu mu ko mënee nag bis dana ñëw yaxrujuuna ñoom ñëpp nit ña doon xëccoo suuf ak ñañ ko doon xëccoo ñëpp min al ajdaas ci bàmmeel yi ka annahum jaradun muntashir mel ni ay njéeréer yoo xam ne dañoo tostaan tostanu njéeréer def am niiraan garab gu ñu romb nga xam ne ay njéeréer dafa jaar ci ku xam njéeréer duñ ca bàyyi dara ay yax lañ fay bàyyi amoon na fi am at yàlla bu mu fi ñëwati kon boog coowul suuf la ca mën a am mooy wolof léeb rek jël bu kii rek suule ko bu kii kese waaye kenn ci ñoom ñaar du ko mujje yàlla nag ne bis boobu nga xam ne yaxrujuuna min al ajdaasi ka annahum jaradun muntashirun mutihiina mutiina ila daayi ñi nga xam ne teguñ ko woon fenn waxe yàlla xekk ma baaleexa bi di alxuraan teguñ ko fenn ah la ñuy wax mooy tey dara du yomb de ni ko gone yi xawal léegi hada yowmun asir tey moom dara nërta yomb yàlla nañu yàlla musal ca bis loolee am na fu ñuy wax ci alxuraan ne lii mu wax naan bis dana ñëw mu génn ñépp ci seeni bàmmeel nga xam ne foofa képp mooy seen suuf jëlalu ko giñ jëlalu ko giñ ndax mën na ko ñii nga xamante ne ni ngay dégg ñi nettali sa maam yàlla fi jiitu woon ñii def fi njombe yoo xam ne kay mënu koo nettali ak yii ñu mën koo nettali noonu la la fi mën a jëlee indi fi ñeneen bu ëllëgee it noonu la mën a génnee ci bàmmeel yi fala uqsimu bi rabbil mashariq wal maghribi inna la qadiruuna ala an nubaddila xayran minhum wa ma nahnu bi masbuqin kon boobu yàlla amul kenn ku koy dir mbagg ndax la mag ma waxoon fii ci dëkk bi rek bu yàggutoo biñ na dañuy defar kër yi Tuubaa yi ay xàmmikaay ay numéro xawma loolu fa mujj nag waaye moom mag la woon dañ ne ko sa kër lañuy tàmbalee laaj ya ñuy laaj yëpp bind ba war caa def màndarga muy ay numéro ñu ne ko yoway nekk numéro bi jiitu mu ne déedéet dinañ ci kër Sëñ Tuubaa def ko numéro bi jiitu ñu ne ko nangu nañ ko kon fa lañ jëm waaye kër Sëriñ Tuubaa googu yaa koy tontuwaaleel kooku Sëriñ Saalihu la mu laaj lañ koy laaj lépp ba àggal ñu ne ko kii moom kër gi nag day signé fii mu ne déedéet duma ci siñeente ndax ku moom suuf si yaay moom asamaan si du ma ko def moomuma ko fi laa ko fekk te fi laa koy bàyyi kon boog li yàlla ne yéen ñii jële leen fi indi fi ñeneen ñu gën ñu leen gën di fi def lu ëpp li ngeen fiy def di ko gën koo baax yàlla amul kenn kum ciy jiitoonteel ak rawanteel moom képp day temp ba mam cay àgg diggante boobee du leen fi fekk yéen daan ne fadaruhum yaxuudu wa yalaabu xatta yulaaqu yowmahum alladi yuwaadun bàyyi leen ñiy fo ak jaay yu amut ba àgg ci bis boobu ñu leen di junj yowma yaxrujuuna min al ajdaasi siraan ka annahum ila nusubin yuufiduuna xaashiatan absaaruhum tarhaquhum dillatun dalika al yowm alladi kaanu yuwaaduun kon boog bokk yi xëccoo suuf fii la suuf tàmbalee ak fii la yam na ci ab julit jóge xam na lum ca ngoor dajale ko ca yor ko ay këyitam seen suuf dong la am soo xam ne du ko xëccoog kenn te kenn du ko xëccoog moom mooy bu faatoo pax su sew sañuy gas mu xóot lool sew lool kenn ku ko jege du nangoo jàpp ñi naan ab xolam attunu ko te fekk dañ ko ragal dong ñenn ñi naan lii ak laa waaye amul kenn ku naan bu leen ko fi def ndax fii maa ko moom dañ koy bàyyi ñu def ko fa ñu dem nag seet yam doon xëccoo moom ba xam ñoom ñii fi des ku ko cay war a moom bu ñu yeewu woon nag ci ne ñoom ñii foofee waa ji mujj képp la ñuy mujj lu ca waay mën a am foofu lay mujj duñ ko ci xëccoon te dañ koy bàyyi ak yàlla te jàppe ko lim ne wal arda farasnaaha ak allazi jaala lakum al arda firasha moo jàppe ko moket yi nga xam ne moom la ñuy fekk fépp bokk yi moket yi nanguñ ko ci dox ak dàllam dañ leen suñu dàll yee fee noonu lañ war a sàmmee suuf si du du kum neex it dagg am moket yóbbu wala boog da koy fab te joxuñ ko ko te su boobaa ay want mën na ko dal waaye ñëpp dañ cay bokk ku ñëw toog la nga fa war a toog dem bàyyi keneen mu toog ñii fi daje fii tey ak feneen néew na ñu ci war a mën a waat ne saa su nekk ajjuma ju ne fañ toogoon la ñuy toogaat keneen mën na fa toogaat doy na sëkk misaal kon tey yow ëllëg sama room kenn ku ne na fexe ba bàyyi fi ab nettali boo xam ne bu ëllëgee bu ñu koy nettali mu rafet ndax nettali du jégal kenn ab taarixu laa yarxam kenn ku ci nekk léeg-léeg mu def fi loo xam ne desu ko mën a nettali am na ci loo xam ne desu ko mën a nettali ñu naan ceel ñu ne ceel nag gàccee ngi leen di bëgg a rey te yaa leen ko teg yal na nu yàlla musal ci ab xëccoo bu mu mën a doon rawati nag suuf mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne doomu aadama li muy wut. bu ko doon wut ba am yetti xuri yu fees dell ak or wala jamaa it soo ko nee loo bëgg mu ne ak ma ak neexoon ma am yenteel xur wu ko yenteel muy yent far muy kaare waaye nee na lenn rek moo mën a fees biiram muy suuf sii nga xam ne bu ñu ko suulee moom kenn mooy dem su demee ba ami fan la newoon ci biiram boobee suuf lay fees xel ba jeex tàkk suuf solo ca ba fees dell nee na doomu aadama yurut ci kaw suuf ndab luy fees lu dul biiram bi nga xam ne suuf moo koy feesal gannaaw bu faatoo yaxam ya tàmbalee wekk ko par benn kawaram nga tàmbalee watu te demut ci coiffeur watut boppam ba yàgg mu dese kàngoom kese suñ ko génne woon tey wan la ko doo ko xàmmee kon bokk foofee mooy suufus nit suuf soo xam ne mooy lekk nit ki waxuñu suuf soo xam ne nit kee koy lekk am na ñuy wax sax ci Tuuba naan Tuuba amul lii amul laa waaye suuf la am nañ ci lekk déedéet suuf kenn du ko lekk suuf mooy lekk nit koo wax lu mu ci lekk lu mu bari bari bu ëllëgee suuf moo koy lekk rësal biiram ba ba mu jeex tàkk mu wekk yaxam ya par benn foq bañam ya bàyyi fa kaamam kese kese kon boog lu ko fa jar nekk fi yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp te musal seytaane nekk bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin